Mansour bul ma tàmbalee teel journal bi soleil dégg nga de yow loo def ci àdduna yaa ko tey yow man Mansour yow mën nga pacanga te ba ma moytuwulee la góor jigéen ba waxoon faaba dinaa la ko wax ah kii. Ousmane Sonko ba mu amee victoire lan moo tax defu ko ci traité bu man ba ma ko gisee mu tiitire ko dafa ma daf maa jaaxal waaye moom lii la ci tiitire wax na dëgg. Mhm. ok nañ dem ci jamaa bi jamaa ak roc recherche infructueuse de la pierre précieuse yéen ñii nag bi ñu leen waxee jamaa ba tey seen xele ngi ci yéen waa bés bi la suur dafa mel ni yéen ak nabu koor sor yow leen de seen xele ngi ci jamaa bi ñii daal bu nu waxul ci jamaa ñi ngi wax ci Moussa Dogota. ñoom daal foofu lañu ko jàpp man ak ñoom jamaa gi jamaa gi ah. benn feebar lañu am. waaw kay léegi de prospection de l'ONU découvrait cinq diamants de 0,64 carats fan lañ ko gisoon. ah quand lañ wax de quand quand une mission. sama wàll mën na cee génn. ah nabu quand une mission rek lañ wax de quand une hmm. ñu ne un mémoire de la faculté de sciences relève le manque d'outils adéquats pour ñu rechercher jamaa kon doo gaaw a. Ah, kon jamaa wa doo gaaw a séddu ah. a séddu dégg matériel bi li ñu ci soxla ba léegi matagul dooga gaaw a séddu dama lay wax rek pour nga wàññi sa xel audience avec le président de la Sénat mu ne Sonko dafa accentuer la pression ndax mhm. Cour suprême dafa statuer sur son différend ak euh, ci diggante moom ak Mame Mbaye Niang le 4 lay doon incha allah janvier ginnaaw bés bi le mhm. jour direct news ñëw ci Thierno euh, Birahim Aw moom dafa parier sur euh, l'intermodalité mhm. voilà Euh, interview la bu bu bu séq ak yéenekaay bi enquête mu ne. Mhm. justice bi kan moo koy contrôler Nabou Cor. ci dossier politico-judiciaire yi nga xamante ne moo nekk en lien ak Ousmane Sonko bii la justice kan moo koy contrôler xam naa enquête dafa maa bëgg a dugal. pate man awma tontu bi. non du ju warul laaj ndax justice kan moo koy contrôler dafa waroon laaj administration kan moo koy contrôler. Ah, man sax. justice ñu ngi def seen liggéey di ñu ngi àtte. E, man taw ma. kon bu ma teen duddal yaa ngi dégg ñëwal nii. ginnaaw ginnaaw enquête ñu ñëw ci 24 heures. Mhm. aménagement territoire statut du pôle urbain de Diamniadio mu ne Macky Sall dafa bëgg aseptiser voilà journal bi ci loolu la titre tey yoor yoor bi diggante 1948 boobu temps xaw ma yow man sóor fa mu la fekk ak yi bés yàlla yoonu yàlla yii tey yow juddu ay côté avant 1948 juddu na. kon ay 46 yooyu nga war a juddu. non romb na foofu man Nevers laa bul jaaxle ci man mhm. Nevers. mais kon xanaa yow da nga bokk ak famille yu Duncan MacLeod <laughs> du ngeen màgget ay immortel ngeen immortel ah, d'accord <laughs> de l'hégémonie aux enfers mu ne parti socialiste nii ndax dafa nekk en état de mort clinique. Uh-huh. parti socialiste yéen a ngi dund wala ma bëgg ko wax ni ko journal bi demal nga tàpp tàppale nga xool ba xam nee na il respire toujours boo tàpp tàppale yëngatu il faut pincer pour voir hmm. est-ce que le parti respire toujours ou pas critique mu ne PM Amadou Ba c'est un candidat double XL d'accord nga nabu Amadou Ba mii c'est un candidat double XL. c'est d'accord à investiture tout azimut pour candidat bi. moom moo ko fi am na dëgg yàlla am na ay yu mag. waaw mais parti historique yi nañ wax ban poids lañ amati ci réew mi. waaw waaye ñoom ñëpp ngi koy ku ne ngay investiture investiture mais ba xamuy nekk candidat euh, double XXL ñi ko investir ban poids lañu am. ci waaye à part Ba da nga gis benn candidat double XL fii. Hmm, ah. amul de. ah laas la de mooy moo dem ba France it lànk kii interview wax dëgg yàlla moom mu ngi doxal de mami. Ah. Ah, eh, mhm. nga ne lu mu def dafa dem ba. <laughs> dafa dem ba lan. dafa dem ba. maandu laa jënd. da nga jënd maanaam man li ma ci jaaxal ma yow loo duggul lu ne loo xuus doo dem ba ca biir de jamais <laughs> jamais de la vie l'audience en cassation yow kay yaay doggi kay Amadou Dogata yow kay Dogata woo yow kay doggi pire l'audience en cassation prévue pour le 4 janvier yaay yéey nag mu ne le mhm. combat suprême ci diggante Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang journal bi euh, di ñu ci wax Euh, lii nga xamante ne nag euh, moom mooy euh, révolution médecine sénégalaise faut qu'on en parle mhm. ginnaaw greffe des reins journal bi mu ngi xamal ne am na succès ci traitement d'un anévrisme cérébral mhm. boo xamante ne les images d'ailleurs sont partagées de de partout waaw ma ne ana ana Bougane Gueye Dany dama ko nam dama ko gëj a gis le quotidien mu ni Sénélec programme tarifaire mu ne de l'eau gaz am na ay dans la production du jugement de yaakaar suñu yoon nekk ci la société va continuer à louer des centrales thermiques yoon nekku ci pas de baisse de tarif prévu am <laughs> ah nag problème la. yoon na ci bu baax. <laughs> yoon nekku ci. ba xam nañ ni dige bor la. bien que dañ koo war a saafara lii yoon nekku ci pexe yi ngeen di wut waaye lii sama yoon a nga tax. <laughs> pas de baisse de tarif prévu à moyen terme bi wuy ma rëkk yi reculer reculer avant qu'il ne soit trop tard yéen a ko fuyoon def leen ko. bu ñuy pipe nga woo ummi. xaar est-ce que du woo ummi Ndour léegi danga bëgg ma ñoom xam nañ nduret de ak ñoo ko miin bu baax a baax. Uh-huh, uh-huh. te yoon nduret bu taxawee nii dinañ seen beneen gàttaan ko mel ni man ma taxaw ci wet <laughs> dama la koy wax. xoola ñaar ñee ci kaw Cour suprême Sonko Mame Mbaye Niang juge dernier round à tout moment mën naa fël le regard mu ni le juge dafa débloqué administration bloqué pourquoi. direction général des élections nee na moo lànk ndaare ba tëdd ci tali bi ne candidat coalition Sonko 2024 bii ak mandataire am bii di Ayib Daffé avocat wum bii di maître Ciré Clédor Ly fu ñu dem ñu ne leen wàññeeku leen du fii ginnaaw direction général des élections nag caisse des dépôts consignation moo ca topp ci matinée wu démb bi mandataire ba ak avocat ba ba tey de ñoom it nee wàññi nañ leen ministère de l' intérieur it naka noone <laughs> fu ñu mënti dem ñu ne leen du fi ñoom seen frustration day gën di yokk rek jëm kam kenn comprendre lul lii lu mu doon les échos mu ne ci diggante Mame Mbaye Niang ak Ousmane mooy procès bi gën a dangereux ci Ousmane ndax nag en cas de confirmation ou décision cour d'appel bi mu ne il est immédiatement inéligible depuis mbiri Khalifa Sall bi nag rabat d'arrêt bi tamit n'est plus suspensif tu vois conseil des ministres journal bi nee na daf ñu ciy ñamal nee na yi dafa matérialiser ay promesse am yi nga xamante ni dige yi mu defoon euh, euh, euh, daara yi mm-hmm. moom président de la république daf ko matérialiser l'exclusif ñëw ci MMB mu ne retourne au parlement et règle les comptes moins d'un mois après adoption au budget 2024 bi ministre bi la ñuy waxal l'express mu ne cinquième séminaire mu ne intergouvernemental franco-sénégalais retour ci bambula bu Amadou Ba ca Paris ajjee ko costume kay libération assassinat d'un gérant du station service euh, ca Touba enquête bi accablé na ñaari pompiste de garde placé nañu leen euh, am nañu ñu placé en garde à vue pour nécessité de l'enquête finalement dañ leen a déféré sax d'ailleurs pour complicité de de de meurtre mu ne ay découvertes yu troublantes yoo xamante ne def nañu ko ci mbir moomu enquêteurs yi ñoo ko ci def. à l'origine déferment wu des mises en cause yi nga xamante ne euh, dañu am fu mu nekk ni retour de parquet lii quotidien mu ne hôpital Cheikh Sénégal da cee réaliser lu rëy muy première intervention endovasculaire. Mhm. image yi nga xamante ne moom la ñu doon wan sànq l'indépendant ñëw ci procès diffamation bi ndax dernière et du sprint judiciaire bi nga xamante ne jàpp nañu ko le 4 waaye bu leen fàtte yi weesu ni du dëkk ma ne bu bu le 4 bi neex neex ba ngeen fàtte décision de justice yi passé te réglé gu na ko du dëkk. waa kay voilà ñoo waxi leneen nañ wax ci biir ba pare mbiri Sonko yeew yi dafay dénoncer boole ci di recadrer administration électorale bi euh, l'info bu ne présidentielle 25 février préoccupation wu Sénat américain bi ci li nga xamante ne mooy li nar xew ci réew mi l'info dina ko xamal l'observateur ñëw ci ay témoignages mu ne ay traumatisme jigéen ñi nga xamante ne dañ leen a agressé sexuellement mm-hmm. ay victimes yuy xam ne dañuy surmonter ay séquelles ba fii ñu toll nii mënunoo fàtte ñeneen ñoo xamante ne dañoo dem ba dañoo bañ góor ndax agression sexuelle ñu dem ba dañoo bañ góor bëggatuñu góor su dañoo suur góor merci beaucoup jërëjëf sukkuraan ma raxtaan ci mbir mi ni mel nag yomb na mm-hmm. na ñëpp jàngi art martial kese nag judo karaté taekwondo amul beneen discipline buy xeex kung fu kido ñoom ñëpp boo ci mën a jàng jàngal. yow nag kaay ma wax la gis nga bu émission bi jeexee dinaa la wax trois prises yooyu jàng bu mu ko dépassé trois kese yoo xamante ne doy na sëkk moyen de défense zaaru man sóor gii. neex na ñoo réglé seen cas. yàlla bu mu nekk viol avec arme nag dangay amee traumatisme dootoo snap dootoo feeñ ci réseaux sociaux yi dootoo sol ay robe yu xonq dootoo sol yi coquette dëgg la viol dafa traumatisant. ak arme. waaw. daa am dafa mel ni am na histoire bu similaire bu xewoon noonu ci réew mi. def loolu mhm. amu fi woon viol ak arme. moo tax viol pour ñu gëm la dafa mu ànd ak ay séquelles daal parce que viol moo nekk loo xamante ne bu laxasee xasee ba daal en ah, masse ni nga gis ñii ñii dañ daanaka seen àddina day yàqu ci gàttal dootuñ melati comme comme nit ni muy mel. Hmm. Hmm. yow kon xamoo viol. yàlla boo ko xam. amiin yaa rabbal Mm-hmm. mais bu viol la ba pare ngay snap ak yooyu daal wane na. doo snap mm. yow déjà lu am rapport ak xonk dootoo ko laal robe bu xonq tu connais. Mm. coquette tu connais toi. waaw ah dootoo nangu visible nit ñi yow dootoo nangu ñu lay xool. da ngay ruus a affiché wu. non bëggatoo fës mami. Walf Quotidien mu ne ci dépôt de candidature bu leader bu Pastef Sonko mii dafa livré wu aux sept sages. Mhm. nabu mii. <laughs> moo tax kuñ fi kuñ fi gëmul rek bul ñu mere bul ñu mere. 9141 candidats yoo xam ne interpellé nañu leen ci nombre d'embarcations clandestines arraisonnées par la marine nationale durant ces sept derniers mois suusu àddina ko xamal bii nag enlèvement la. Mhm. Kër Massar la xewee Mouhamed Abdallah na tudd ñu koy woowee junior ñetti at rek la am. Mm, ku ko sàcc. pour lan la. génn leen ci yii ngeen nekk nii génn leen ci yii génn leen ci yii ngeen nekk waaye Sud Quotidien bataille pour sa réintégration sur les listes mhm. électorales procès Prodac Sonko sur tous les fronts wallaay billaay wallaay Asim yaa wax dëgg moom kay il est sur tous les fronts kay présidentiel Karim Khalifa Sonko mii mhm. mu ne ay incertitude sur le parrainage par les députés déet yéen kay waa waa man waa <laughs> ah <laughs> déedéet kay <laughs> ñii moom ñii ñii ñii moom matal na kii ba tey mu ngi ci liste de départ bi pirip dip lay xaar daa yeggagul Touré may ma Touré Touré may ma ma yeggali émission bi ma maa lay rappelé dal waa kay waa kay ñëwal nii euh, ci beneenub yéenekaay gannaaw tribune la euh, campagne arachidière bu bi nga xamante ne ni mu démarré daal maal na daal maal 300 milliards de francs CFA de perte pour les producteurs pourquoi au nom de quoi. Alpha Diallo waxoon na ko de. waxoon na ko xëy. ah campagne bi c'était mal m vraiment tamit datu troisième round bi. la troisième round moom dana jeex deux minutes pour lire l'essentiel santé le Blouf se meurt il exige son hôpital Média 2023 année macabre des journalistes moom kay sàllaaw ah, ñam nañu lu ne <laughs> rawatina Sénégal <laughs> mu ne la longue errance des envoyés de de Sonko mhm. na bu errance moo gën a metti ci àdduna mhm. te li koy waxuma la longue errance waaye li ñu nekkee tar na daal population yëpp riiri nañu fëx dem wuti ji ay masque tas takk ko lu tax ndax réew mi dafa bari poussière docteur Yacine Dia pneumologue nee na air pollué bi mu ni euh, mën na am retentissement ci organe yu bari yoo xamante ne moo nekk ci suñu corps kon il vaut mieux se protéger contre la poussière. Mhm. beneen bi mooy Alioune Tine mu il montre la voie de sortie de crise politique mu ne il faut le dialogue de la dernière chance organiser ko ko dégg nga bu jógee nga organiser dialogue bi ñëwal nii dem naa ca ja nag. ca làmb ja ñu ne open press wu Reug Reug en sama doom jaa ngi gis nga ni mu ceene yow xool ko. xool ni mu ceene càpp dafa ceene <laughs> ñun ñun caaro yi dañuy dugg ci géej gi napp jën ba na jën ba pare dugg ci suñu biir kër i teg suñu ci ni togg ci jën ba niin ba fa fatta tarak ba neex hmm. ñu la dànq ak ma dégg bu nu dànqee suñu ceeb ba pare ñu teg ci mm-hmm. njarum soow piir mm-hmm. mm-hmm. ndax nun lébuy danoo naan soo piir mhm. ba nu naanee soo piir ba pare i teg ci lëwal ak deuxième ak troisième ba nu toogee ba takkusaan côté timis am maa déglu ba baax e aw la maa waxal ban toogee ba ay 16 di 17 heures i lekk kii mburu fataaya mburu akara i kii def njoganal ban mm. toogee ba bóori timis na i nu naan fonde ba nu naanee fonde ba ay vingt et une heures nu def cappateen du ngeen def lakka jën lakka jën mën nañ koo def ca cappateen bi la cappateen xam nga mën na mën naa kaa def aw reer bala neexee ulakk saw jën u def ko aw wala ulakk sa jën u def ko aw njagoon na lu tàkkusaan loolu mën naa ni wala u def sa mburox ton <laughs> mais nun xam nga nun danoo bëgg lekk biis ba nu defee cappateen na bu koor bay waaj na nu def ku san moo tax sama doom ji taar yéen yëpp ngeen def waaw sama doom ji dafa ceene tuwaarkàll ah, kii nag mooy Aysatu Maane na bu koor xoolal arrière droite wu diisoo mu ne remporté na tous les titres possibles au Sénégal war nañ la sargal. macha allah macha te xamoon naa ne jàmbaar nga mën a doon ay Aysatu nga tudd ni sama yaay. Mhm. ñi tudd Aysatu yëpp ay jàmbaar lañu. macha allah boo tuddoon nabu dina ma jaaxal barkantu <laughs> ah mu ne kan si c'est donne des indices pour les 27 unions. si c'est doxal lu la neex doxalal en tout cas ñun nan nañ kii rek nan gën a jeex na fi la yem. ana record amul record record si see ngi Aliou ngi jekk rasta. Aliou Cissé oublie Amara Diouf mu ne les joueurs ko exclus de la liste am na juróomi champion d'Afrique 2021 yoo xamante ne dañ leen a zappé bokkatuñu la liste des 27 lions mu ne dessiné nañu ko ba noppi dessiné nañu ko ba noppi. ndaw lii nag du ci teg leneen leneen. xam nga lu ma cee tege waa kay nu nu yendu ak jàmm. yàlla na la yàlla defal jàmm ah. man loo bëgg wax rek. loo ko bëgg a wax nabu te bu ko faral <laughs> non taxawal xaaral xaaral nabu koor man ni rëg-rëg bu ko faral. moom la jëla faral. waa kay alhamdulilah rabbil alamin nabu bul faral rëg-rëg sa yoon nekkul ci rëg-rëg rëg-rëg lépp lu nekk ci ay kiiwam xoolal ay affaire de entraînement am am na ko koy gérer yaa ngi dégg man man yaay mbàjj na man man maay gérer bii. lii mënu ko bañ a faral. mami yow lu takk ci yow takk ci man. déedéet séeréer sa yaay ak sa doom nga bàyyi ma ak Reug Reug wax ji jeex d'accord nag Reug Reug ak Modou Lo bu leen faral sa yoon nekkul ci ñoom ci yow day takk ci man déedéet non je dis non tu comprends français. <laughs> tu ne faral pas Reug Reug et tu ne farales pas Modou c'est clair très bien bonne journée. Reug Reug bi laa faral ci kattanu yàlla. jërëjëf ajaratu merci pour la revue Reug Reug yàlla na ko yàlla may ndam fu muy jaar di la xam Bombardier tamit wàllu yu bàyyil na bàyyi yombalal ñu mbir ñi na bàyyi xam naa li ma la wax bu soobee yàlla kii laa faral de moom laa faral nu mu tuddati rek Reug moom laa faral yàlla na ko yàlla may ndam bu sedd guy alors merci beaucoup jërëjëf ajaratu jërëjëf yaa Seydi tey moom wax dëgg yàlla neexal nga plateau bi wala neexalati nga ji Bombardier <laughs> <laughs> kenn mus ko gis dañ lay xoolal ki nga faral dañ lay xool ah yàlla baax na ay ci des yàlla na barkeel alors ñu ngi leen di euh,